lool waaw man xanaa sëñ daanaka loo xam ne da nga xam nuñ ko no jàpp daal ne laa mën a tëjee. ah ñaan mu delluwaat rek lépp ci am njàngaleem. bi xam ne sëñ Fallu làqu na. màggal mm-hmm. gi mu njëkk a woote màggal gi moom dafa waxan loo xam ne moom la mas di dund moom la mas di dund moom la dundale waa këram waaye yoon wi itam jamono jii ñu toll. Mm-hmm. mat na fàttaliku ndax wax jooju dafa mel ni bukk ci yi ma gis ñu bind ko. Mm-hmm. te xam naa ne mel na ni booba Aristo yombut. Mm-hmm. dafa dafa waxan ni na ngeen xam ni. ànd mooy seen warugar te moo leen jig. te mooy tax ngeen mën a jariñu mooy tax ngeen mën a jariñante. daal ni loolu nag danaa leen ko misaal ci jëmmi doomu adama hmm. doomu aadama ni ko yàlla sàkkee képp ne la mën a bàyyi loolu door a mën a jëriñ boppam door a mën a jëriñ keneen daal di ne tànk bu ne maa baaxoo dox ba bu ma bàyyee fi ma baaxoo nekk dama koy far baax bañ xam maay kan. Hmm. boo xisee bàyyi yaram yam yam ko saxalan. Hmm. fa mu jëm moom duutu fa jëriñ duutu fa jëriñ bu bët nee maa baaxoo xool su ma demee kenn dootu gis ba tax koo génn fa mu jëm du gis fi mu bàyyi ko dootu fa gis daal di wax na li des ci cër yëpp na nan la mel daa naa ne loolu nag kon moo leen di xamal ni yéen yoonu mur yëpp jënd jëmm ngeen seenu nangoo ànd mooy tax ni ngeen war a doxe ngeen mën nee doxe te te di si leen jëm loolu waxi sëñ bi sunu waajur yi mu koy dugal ci jàngale mm-hmm. booba sabab sabab dëgg dëgg dëgg mooy njabootam ak lenn ci ay dong yu mu yóbbu woon bëmb ñu bum leen fa indee ba mu leen indee Daaru Salaam ci yu bari daal mhm. waaye xekkam bi tax may wax mhm. dafa wax sama baay ne ko tumuranke du tax a mokkal alxuraan day tax nit a ñàkk jom <laughs> du tax nit a mokkal alxuraan da koy tax a ñàkk jom <laughs> loolu wax na ko keroog la <laughs> ciy des dafay loo xam ne dañuy dolli yaakaar. Mm-hmm. dolli nuy yëqiin. Mm-hmm. dolli noo xamal suñ bopp. Mm-hmm. sëriñ bi mm, jamono yi diggante cinquante huit cinquante sept. cinquante sept benn ci yooyu. dafay waaje taggoo ci dëkk bi ngir dem Gàmbi. dem Daaru Salaam waaj. dañuy teg weeru koor wi di waaje teru. xëytal weeru baraxlu wi dal mu waaj daal dajale ay bagaasam ba war a dem. booba ku ñuy wax suñu Aliou Ndiaye moo koy dawalal guddi guddi ba bëccëgub talaat bi mu waree xëyee Daaru Salaam dem kawlax jàll Gambi guddi altine gi ko jëkk sama turandoo gént ci sëñ bi loo xam ne neexu ko mel ni daal dafa gént dañ ko woon ni sëñ bi mi ngi jéggi bag bi waaye wata bi dafa dafa dafa dafa dafa reposé wu ci ndox mi sëñ bi daal topp guddi di ko wax ko maam am satu jaxate maam dal di ni man de la ma bàyyam waxan ci moom du loolu waaye nañ ma wol sëñ Saliou mu ñëw dabi ko daal ni danaa ñaan ba cëgub talaata bii fu ko fekk mu yendu fa ba jant bi soon ndax bu rëccee ci talaata ji moom dana rëcc daal ni sëñ Saliou demal Daaru Salaam wax sëñ Abdoulaye ni na dëpp dañ koo soxla sëñ Saliou daal dem ba mu duggee ci dëkk ba ñu ne ko sëñ bi di ba mu fi jógee léegi ci ñeent fukki minute lay toll naa dem na daal sëñ bi daal leen ni nañ ma wutal ku xam yoon wi mu mu di wàcc ba dabi ko daal amaana mu jaar kawal xa yendu fa nañ daal di wax ko ca dem daal di ñu ko moom Baye Mbaye ñang mii di jàng lañ njëkk wax ne ko kaay dem ca Baye Mbaye ñang daal di ni man kat foofa dafa mel ni taxut ma mel ko te Modou Dieng mii dem ci. Hmm. Modou Dieng nag moo Dieng mi bëri bërigo bi daanu woon ci ci ci tànkam tam jëlee ci accident ba faatu mooy bàyyum njaxat Dieng mi laat fët fal ñaareele. Hmm. ma ma magi bàyyam nag moo dabi woon sëñ bi léegi mu Dieng daal dem sëñ bi li ma ci ñor nag ba tax ma di ko wax. Hmm. sëñ bi daa jékki-jékki bi bi benn waxtu yi jot mu dëpp ñëw nga xam ne gisul kenn bi mu dëppee bàyyi mët mii la njëkk fekk mu toog mu ne ko mu jàpp ci loxoom ne ko mët mu ne ko mbàkk mu ne ko tukki déwén waaw ñu ne ko moon bàyyi mbàkk bàyyi mbàkk jot nee na ma ne ko mën a yow de Sëñ la fi jógee di la dab ne dañ laa soxla mu ne xam naa lañ may doyee ki ma gisee leen gis. Uh. ah mbàkk ne ko ah mbaa jàmm lii mu ko man damaa génneer soxna si ci wata bi soxna jaxate mu ne ma dalal de wiññi ko bul umee koor fenn furu sa kër waaye bu ajur ma bul umee koor fenn furu sa kër ma xam ne